برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان ñi ci bu fa tidiane ñepp mbokk talibé ñu ngi leen di nuyu di leen ziaru baax di ndokkeel mboote mboolem jullit fi mën si nekk ci àdduna bi ci weeru koor bi nga xamante ne bu màgg bu tedd la ñi ñaa ngi siibaru fayet ñaani Cheikh Yérim mi ngi nii fii la jullee naafile ñu bàyyi sëñ Mbaye mu sànni ci ay kàddu sëriñ bi ñu ngi leen nuyu den alhamdulilah sant yàlla bu baax di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Ahmed Tijani mboolem sant ma sante ku ki ma fekk ci lëndam dugal ma ci leer muy Mawlana Cheikh l'Islam suñu yaakaaroo adduna ak alaxira euh, du may wax rek ñu ngi nii ànd ak sama doom mawlaaye cheikh alxalifa cheikh haadi ibrahima Niass muy cheikh ibrahim ñu ngi toog ak moom ànd ak cheikh jibril mi nga xam ne muqaddam la ci foofu ñu dëkk ci Ngor Almadi moo fa teewal cheikh ibrahima Niass moom ak Serigne Kane nii nga xam ni ñoom ñoo fa nekk tey ñu ngi nii ak yërim mooy problème bi nga xam ni dugg na ci sit bi mm-hmm. nit ñi dañuy comprendre waaye taaliba bàyyi bugguma ñun li ñu bàyyi jàngal buñ ko jël ñun di ko yàq bàyyi lum ñu jàngal mooy baale ak jéggale ak defar doomu aadama waaye lépp luñ gis rek buñ tëb ñuy réagir kenn xameewuñu noonu ci àddina te bàyyi loolu la ñu yare nit nag soo moomee sa kër tey jumaa ji su ma ko moomoon lu ñu ci def dañ naan Cheikh Ibrahima Niass kon nag soo moomee sa place muy liggéey kenn gis dara dugal ko boobaa erreur am na waaye duñ wax kenn dañ naan borom yëf ya moom moo ko def waaye borom yëf yi nag su retourné ne maa ngi jéggalu ba pare wane cofeel ci kër gi wane dëkkam ci kër gi boobaa ñun dañ koy nangul ndax wax naa la ci njëlbeen na la bàyyi mooy jéggale ba pare di defare ñaata nit lañ gis Cheikh Ibrahima Niass ñu ko tooñ ma nettali la benn histoire am na koo xam ne dafa sonaloon Cheikh Ibrahima Niass jour ba mu gaañoo ñu ñëw tàggee ko Cheikh Ibrahima Niass Baye dafa ne alhamdulilah ñëpp tourné na ko ah Cheikh Ibrahima xanaa yëf yi daf laa daf laa metti mu ne déedéet damaa sant yàlla ne lépp lu ma tooñ mosumaa jàpp ci sama xol bi pour def loo ko loo xam ne lu ñaaw la wala jàppal ko loo xam lu koy loor la lu dul sante naa yàlla ci loolu kon kon dañuy wax alhamdulilah ñëw na ci xalifa bi ñëw na ci porte parole bi jéggalu na Medina la ma rek ci sama vidéo bi loolu laay waxaat na taalibe yi ànd ak dal te xam ni tamit mbokkab taalibe la mhm. te nag yaakaar naa kenn du jël sa sëriñ di kore mhm. moom nag mu ngi ni ñu ngi ni mu sànni ci kàddu bala nga dugg ci wax ji wax naa ko léegi nee naa kaabu eh, ñëpp xam nañ koo tooñ na yonantu bi ba yonantu bi ne bu jàppee ci kaasu bi sax mhm. ne nañ ko rey waaye bi mu baaloo yonantu bi yonantu bi daf koo baal te alxuraan nee na waan taafu aqrab li taqwa mën naa am Cheikh Baye bu jëlee kàddu dina mën a réagir bi wax ci loolu comme comme rek nañ ko jégal daal sëñ bi ñu bàyyi Kountaana ci leen kàddu waaw d'abord maa ngi am mbégte loolu di ñëw fii di gërëm sama ñaari kilifa yi ma àndal vraiment ñu ñëw introduire ma ñu dem ci porte parole bi mu wax euh, wax ju rafet a rafet ñu dem ci xalifa bi mu ñaanal ñu tey moom daa wax ci alfayda loo xam ne <laughs> mosuma ko wax parce que ñu bari ñu ngi may gis Sénégal gis may wax di yéeg di wat mais kenn mësul xam ni taalibe Baay laa waaw hmm. muxadam bi Cheikh Jibril Guèye bi moom moo moom moo jox werd kii nga xam ni mooy Cheikh Sayid Kan Cheikh Sayid Kan bi moom moo jox werd il a un an loolu Sénégal xam nga ku ne xam ñu bari xamuñu ko ci man ñu ànd man ak moom Màkka ci raw du yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ma ko donc man ci faydu bi laa bokk. maa ngi naan ci leeru bàyyi. macha allah boo gisee ni ma watoo nii sax xam nga ñu ma bari xam nañ daaw ma watoo nii. <laughs> bokk ci faydu bi ak dundu faydu bi. Mm-hmm. moo tax nit ñi xëy suba Sénégal gis ma watoo nii. moy mm-hmm. fo ñu xam ko mm-hmm. taalibe bay la bu wër taalibe bay bu wër la bëgg doon mm-hmm. ci faydu bi sha allah mu ci gorgolu lu ma mën li nak li tax mu metti ma moy man dama fay bok mu fee bokk def ben jigen bi liggéey ci ñun daal di def gis ah. affaire bob ci ben vidéo fekk nak man ma jappone kurus ma waxoon bu ma kenn déranger mu duggal ko ci bi ko duggalé comme ci yefi la bok ñu bari woma ma bi ko yegge dama ko dindi immédiatement bind bind lii lii waru fa mais bind bi rek doyuma ma def vidéo aussi mm-hmm. wax ndax man fi laa bokk donc euh, loolu moom révélation la boo xam ne xam naa ne defal naa ko euh, <laughs> faydu bi mm-hmm. <laughs> fayda mm-hmm. te mosuma ko wax fenn parce que dama jàpp ni lu nekk ci ngëm-ngëmu nit ci bii privé mais lii àdduna mooy dox ba tey ma wax loolu xam leen daal taalibe bàyyi laa bëgg a doon euh, ki nga xam ne moom a jox werd Euh, tey ba tey ba la ñu fanaan man ak moom ci jumaa ji xam nga je pense que ñu bari dañu leen fa ak ñoom gàmmuwaat bi aussi ñu ngi woon fii ñëw nañ ziar si baay bi ñuy dem tey ba ñesee ni jaar nañ fii ziar baay mm-hmm. donc daal yàlla daf ma boole ci kër gi xëy na bi ma ci bokkee yàggul waaye daal waa bëgg a doon taalibe Baay bu wér. doon taalibe Cheikh Tidiane bu wér. yàlla ko yàlla def ah, doon jullit bu wér loolu daal a ñaan yàlla. alhamdulilah jërëjëf sa wax gi doy na bàyyi naa doy naa lu sëñ bi hmm. hmm. euh, euh, dañuy sant yàlla. Euh, di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. def tawassul ci bàyyi mhm. mu defal ñu mu yàlla defal ñu faju ko baa zahiran wa baatinan eh, ànd nañ yàgg na yàggut parce que at ak lu teg te ñooy bokk toujours def xadara sama kër eh, te alhamdulilah mu ngi jàppale sama doom ji muy Cheikh Sayid kan moom muqaddam la it gis nga dañoo yore daara te lu gën a bare moom moo taxawu daara ji bu dul woon ca am nañ benn internat bu dul woon moom danañu xaw a sonn suñu danañ xaw a sonn tuuti mais yàlla mu ngi ñuy dimbali ci moom mu ngi ci teg loxoom mu ngi def góorgóorlu alhamdulilah ci diine et kurus bi tamit mu ngi ciy góorgóorlu Serigne bay daal ñaanal ko yàlla. Euh, ndaxte yow yaay caat. man defe naa soo ñaanee mu am. waaw bëgg nga warlu rek. nga ñaanal ko la mu yëngatu yàlla yëngatu ko ca kaw. su ko defee it. moom xam naa ko bu baax eh, faydu bi loo ci def rek mm. dafay delluwaat ci yow mm. waaw moom bàyyi moom alaa xaal mm. loo def ci moom bu dee benn di nga am téeméer bu dee benn di nga am junne waaw loolu moom xam nañ ko yàlla na yàlla dimbali ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen di sant sëriñ bi ku baax la vraiment ku baax la dëgg la dafa rafet daal xam nga loo gis dafa laaj nit ñu am esprit ouvert open mind ni koy wax moom yàlla jox la ko loolu alhamdulilah defal ñu ñaan macha allah maa koy jox sama doom ci bàyyam <laughs> nga xam ne chahadi lim tagg ci yonent bi sallallahu Ibrahima Niass mii moo ko jox. Uh-huh. ñu ngi tawasul ci sama doom. mu tawasul ci maamam sànnil ñaan ndigal la ndigal sotti. bisimilah salaatul fatiha ñaan jël ko Mawlana Cheikh Islam Hadji Malick ñaan yàlla yàlla nag yëkkati ko. amiin yaa rabbi yàlla defal ko tawfiq. amiin amiin incha allah ci barke Fatiha salaatul fatiha alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf yëpp yaa ngi noonu ñun ñëpp ñoo ko gisandoo Cheikh Yérim moo ñëwoon fii fii la jullee naafile bi mu paree ñëw ziare Baye dem na gis xalifa bi jégalu ko gis na Cheikh yi jégalu ko te comme xalifa bi baal na ko Euh, ñi ngi ñaan daal mbokk taalibe yëpp kenn ku ci nekk euh, la nga jàppoon nga bàyyi ko te xam ne nit mooy juum euh, te ku juum amut waaye comme def na taraajo dellu ginnaaw ci décision bi mu jëloon ànd ak ne sax ne nit ku juum amut waaye kom juum na jégalu nañ ko baal te comme xalifa bi baal na ko daal gis naa ne jaadu wala nag waaye ñu ma leen nag xat na jàpp nee na taalibe Baay la woon sax te nee xamul ko woon waaye wax na ko fii ci aji Tijaan yi ñu ko déglu ñu joxe ñëpp bëgg daje incha allah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala moom laay laajte nii lu mën a kan moo tax Cheikh Muhammad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 اللہ جائے رائے اللہ رائے اللہ اللہ اللہ éducation boobu amoon bu ci dem doon ko si ñu leen jox dig daje gën a yomb asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu